wa radiyallahu an abdillahi wa xadimi rasuli yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen seen bopp seen seen youtube Gaydel TV ci seen jotaayu bopp jotaayu Murid Sadikh ngeen ki ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thiam ñoo del siwaat ak yéen ci ñaareelu xaaj bi nga xam ne moom lañ leen digoon ci xasootu badrin al kubra muy xare badar mu amoon fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor bisu àjjuma keroog bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci mbaar mi mook di ñaan yàlla tala loxo yi di ñaan mbalaat mi nekk ci mbaggam mu naan ya hayyu yaa qayyuumu yaa hayyu yaa qayyuumu ba mbalaat mi rot sidna Abubakar Siddiq for ko ci mbaggam yonent bi sallallahu alayhi wa borom allahumma in tuhlik haadihi al isaabata min ahli al iman lam tuxbal fil ardi abadan yow sunu borom boo xoolee boo seetaanee ba kuréel su si ci ñi la gëm ñu gañe leen ci xare bi kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ba mukk bay wax suñu borom naan ko yow suñu borom yàlla boo ma toroxal yow suñu borom li ma digoon euh, maa ngi koy xaar muy ndimbal ak ngañ ak ngañaay foofu nag dina Abubakar Sadiq ne ko yow sa borom ne woon na la yaay xare bi euh, lu tax ngay sonn ni di ñaan foofu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ment dugg ko mu xar fa xar-xarle bu néew ne la fa tuuti daal di yeewu daal di dee daal ne Abubakar bégal sa borom dig na ma nee na maay gañe xare bi euh, jibril la ngi nii ànd ak lim bu bari ci ay malaayka di wàcc tàmbali naan sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur bi nga xamante ne nag ñaari mbooloo yi daje nañ mbooloom yéefar ñoo xam ni gëmuñu yàlla tekkiwuñu dara ak mboolem julit moo xam dañoo gëm yàlla wóolu ko alayhi wa sallam xam ni nag wure wure wa dem na këng mu daal di nag tibb suuf daal di koy sànni yéefar amul benn mushrik benn yéefar burul euh, suuf dugg na ci sa bët dugg sa baxi bakkan yàlla daal di yebal ñetti junniy malaayika loolu sax moom nga dégg suñu borom di ko wax ci lan faal di ko tagg wama ramayta is ramayta walakin allah rama ba nga sànnee keroog suuf suuf suuf soosu nga sànni woon sànni woo waaye yàlla ci boppam moo sànni waaw la sëñ Tuubaa di tagg sax eh, na bu naan ko salla alayka bi man ladayka musnin alayka inda rimaay bi nga xamante ni loolu am na yàlla yebal ñetti junniy malaayika jibril seydina jibril jiite leen ñu yore méttel yu weex mooy kaala yu weex yoo xam ne mbicc mi daa jëm ci ginnaaw seydina jibril yore kala gu jaune jaune nga xam ne am na seede sax am na ñaar ñoo xam ni bi malaayka yi wàcc ñu ngi taxawoon ci peegu xare bi nga xam ni aw niir moo wàcc ñu jékki-jékki ba yàgg gis borom métal bu jaune wàcc ba yàgg borom métal bu di wàcc kenn ci ñaar ñooñu sax loolu mu gis ne tax na xol bi dagg mu daal dee fa saasa kenn ki moom nee na man xaw na maa dee waaye deewuma maa ngi dégg e, borom métalu jaune bi mu ngi naan xay zuumu aqdim xay zuumu aqdim xay zuumu aqdim ñetti junniy malaayka yooyu daal di wàcc ci biir xale bi bi ñu wàccee nag xam ngeen ni malaayka moom xamul nu muy xeexee waaye sunu borom tabaraka wa taala moo leen jàngal ni ñuy xeex ak aadama ndax malaayka yi bi ñu wàccee badar keroog lañ xeex ñëw nañ yeneen xare yi sax lu mel ne xunayn ak xandax waaye xeexuñu waaye badar moom dañoo xeex yàlla moo ni leen fadribu fawqal anaaqi wadribu minhum kulla banaanin dóor leen ci dox yi ak ci articulation yi waaw wax naa la léegi ne la jibril moo yoroon méteel bu jaune malaayka yi ci des ñetti junni yi ci des yore méteel yu weex bi nu wàccee ci xare bi ñu nga xam ne dangay gis jullit boo xam ne day songo ab yéefar ba ko dóor jaasi waaye day day gis balaa daas jaasee ma dal mu gis waa ji ne jànjang mu xam ne am na am na xew noonu ni la xare bi déroulé muy bëccëg bu tàng jër nga xam ne da ngay rek eh, dalu jaas yi ak xeet yi ak fet yi waaye daanaka doo seen kenn ndax poussière waaw loolu dinañ ci ñëw léegi ni ko sëñ net nettalee ci xasida gi bi nga xamante ni loolu am na nag ba xare bi jeex julit ñi daal di gañe xare bi rey ci yéefari juróom-ñaar fukk jàpp ci juróom-ñaar fukk jullit ñi moom fukk ak ñeent rek ñoo ci faatu ci xare boobu bi nga xamante ni loolu am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di woolu Abdullah ibn Mas'ud xam ngeen ne moom amul woon doole nit ku gàtt la woon ku tuuti euh, amuloon doole xare ci lu bari yonent bi ni ko demal xoolal ma ñi des te deewuñu nga jekkali leen te nga xoolaaleel ma abu jalin doonu yàlla boobu fu mu toll bi nga xamante ni Abdullah ibn Mas'ud génn na di wër di wër di wër fekk na euh, Muaz ibnu Amrin mi nga xam ne moo abu jahlin ñu koy wax Muaz ibnu Amrin moom bi muy gisee ab muy wër moom it daa fekk abu jahlin mu nekk ci diggante garab yoo xam ne dem fa àgg fa jafe na muy felet garab bi par ndànk di ko felet ba fekk ko ci biir mu nekk fa ak doomam ji dool ko jaas ci yel bi bu yel bi naaw naaw mu yuuxu ba fa baatam yem nee na nag Muaz na ci la ma Ikrima dóor jaas sama diggante ndodd ak sama loxo bi ba sama loxo bi dagg bay lang nee ma continuer di ak loxo bi ba yàgg ma dëgg ko sama tànk mu jàkkale ko ndeysaan bi loolu amee nag eh, Abu Jahlin tëdd di xar-xarle ci la nag Euh, Muaz wala ku ñuy wax Muawaz ibnu Afra moo ñëw jekkali ko moog doom ji Ikrimata moo leen rey bi mu ko reyee nag ba mun toll ci xar-xarle nag maanaam li ñuy tudde sukuraat foofu nag euh, Abdullah ibnu Mas'ud agsi nag nga xam ne yonent bi moo ko yónni woon ni ko na ko xooral Abu Jahlin ba xam nu nu mbiram du mujjee Abdoulaye ibn Mas'ud egsi daal teg jël dënd jël tànkam bu tedd ba tekku ci dëndu noonu yàlla bu bon boobu Abu Jahlin daal di koy xool muy Abdoulaye ibn Mas'ud mu ne ko yow sàmmkat bi yow nit doomi doom ju ñuul ji sàmmkat bi yow teg nga sa tànk ci ci barab bu tedd yow mu torox mi ah Abdoulaye ibn Mas'ud ko déet yow ko yaa torox ndax yow yaa ngi nii di xar te da ngay dee te boo dee sawara nga jëm Abu Jahl ne ko waaw waa waa waaye nag dëgg-dëgg daal wax ma ku gañe xare bi mu ne ko xare bi ñoo ko gañee ah Abu xool ko ne ko ah kon yéen a gañe dal di fay jaare daal di faatu bi loolu amee xam ngeen ni umay umay itam nu xalaf tamit noonu yàlla mag boobu nga xam ne moo jàppoon bilaal daan ko daan ko fitnaal di ko nattu ay xeer di ko teg ci dënd bi ci mala koy naaju tàng wi bilaal bilaal naan ahad ahad yàlla boobu umayata eh, awfu day dox ba yem ci moom fekk xaritam la woon njëkk lislaam xam nga bu njëkk da ko daan wax ni ko man bi mu tuubee dugg ci lislaam nag mu ni ko man fekk abdourahman ibnu awf tuddul abdourahman ibnu awf abdu ibnu amrin la tudd ah, abdu ibnu amrin moom la tudd ah, bi mu duggee ci lislaam nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tuddee bi nga xamante ni abdourahman ibnu awf nag bi mu mook umayete dañoo xaritoo woon bi mu duggee ci lislaam nag umayete ko umayete ni ko man Abdourahman xawma lu mu doon mun ma la ko wooye ndax man lu ma xamul du ma ko wax waaye nañ wut tur woo xam dinaa la ko man di wooye mun ko kon naa la wooye Abdul Ilahi mu la ko wooye Abdul Ilahi bi nga xamante ne bis boobu nag fekk na Umayya ibn Xalaf mu mu làqatu am fu mu làqatu euh, mu gis Abdourahman ibn Awf rek mu ne ko Abdul Ilahi yow Abdul Ilahi kaay fekk Abdourahman ibn Awf mu ngi yore ay bubu koŋ yu mu jëlee ci xare bi yoo xam ne da koo jëlee ci xale bi mu ne ko kaay jàpp ma boo ma jàppee ginnaaw bi dinaa la jox téeméeri gileem nga bàyyi mbubu koŋ yooyu. ah Abdourahman bin Awf daal di koy jàpp maanaam mu nekk prisonnier am jar moom li ñuy tuddee jar-jar bi mu ko jàppee nag foofu mu ko jàpp ba téye ci rek Bilal daal di egsi daal ni lii hee kii du Umayya ibn Xalaf wax naa léegi ne la moo ko daan fitnaal ginnaaw bala la ko Seydina Abu Bakar Siddiq jënd waaw. ba yàlla wàcc ci moom laaya jooju mu wàcc ci moom ci suratul layli waaw wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa illa ibtixaa wajhi rabbil a'laa wala sawfa bi nga xamante ni nag loolu am na Umayya ibnu Xalaf nag Abdurahmaan ibnu Awf téye ci loxo bi Bilaal seen ko Bilaal ni xéxé noonu yàlla baa ngi ne Umayya ibnu Xalaf yow de boo boo rëccee yàlla naa dee boo de rëcc rek yàlla naa dee Abdurahmaan ibnu Awf ni ko Bilaal ay waay Seydina Bilaal teg maa bañ a xañ sama sama gëléem yi nga ma nar a xañ mu ne ko xawma lu mu doon de waaye kii de ci yàlla de dee daal di yuuxu fa baatam yem mu Abdurahmaan na Awf daal di bi mu téye Bilaal mu bi mu téye Umayyata Bilaal yuuxu ba fa baatam yem daal di yéen yéen soppe yàlla yi kaaw leen ñëw noonu yàlla baa ngi nii Umayyatu mu xalaf ñëpp daal di ñëw ñu daal koy sëkkatoo dóor koy jaasi ba mu seddu guy waaw ah, ci la moo tax Abdourahman Abdourahman bin daan wax naan yàlla na yàlla yërëm Bilaal xañ na ma sama bu koŋ yi xañ ma sama jaam xañ ma sama ay samay gëléem ah bi loolu amee wax naa la ko léegi nag xare bi daal di jeex jullit ñi gañe rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ci yéefar yi jullit nag ñoom fukk ñi teg lañ ci rey bi loolu xare bi noonu la tëddee sunu yaakaar nag sunu wasila Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñëw di nu jàngal xare bi ci ñaari xasidaam yi benn bi di jisbul xuluub ci des ci di di muy xasida yu yéeme xam ngeen ni euh, xare bi saxaaba yi aboubacar sadiq radiallahu anhu seydna omar seydna ousmane seydna ali seydna ali demoon na seydna omar demoon na seydna ali euh, seydna aboubacar demoon na waaye seydna ousmane moom demul demul waaye yonent bi salaasam moo ko fasaale ndax euh, loo xam ne da ko bàyyi woon Madina mu ay ndigal li yonent bi sallallahu moo tax sëñ bi ñu koy nettali ci mimi yam wax ne fii yawmi badrin bada badran wa amahumu ilaa kilmati man ala binhimama isjaahu fii fardan fi sahabatihi album xaw siqatan lam yaskur ni'ma sëñ Tuubaa nee na bisu badar ba yonent bi sallallahu alayhi feeñ ci biir saxaaba yi mel ni mel ni weer leer nañ ñi mu jiite leen ngir yëkkati baatu bu yàlla bi nga xamante ni mooy kalimatul ulaahi ulya nga xam ne du féete suuf mu kaw rek lay féete maanaam ni xaadat li badrin zawil xusna mat saadatuhum wa kulluhum waasixun billahi munjazima sëñ Tuubaa nee na julit ñi li leen yóbbu badar mooy yàlla def leen nar nar te xeel nar leen yóbbul àjjana mooy tax mu yóbbul leen badar waaw yàlla daf leen nar a yóbbu sawara moo tax mu yóbbu leen badar moo mu ne wa kulluhum waasixun billaahi mun jazima kenn koo jël rek ci julli ñi ma nga dëgër këcc ak paseef ak gëm yàlla loo yàlla dogu ànd ak détermination boo xam ne amul fu mu yem waaw xat saara saxba xubban li nabii maan li xubbi xaaliqihim xubban dafa duhama wa fiimul xulafa siddiqu ma omarin usmaanum ma aliyin buxeeti ulama nee na ci seen biir nag ñoom sahaaba yi xalifa yi ña seydina abubakar siddiq seydina omar seydina ousmane seydina alin waaye daa daa daa wane ni daa waxaat moom sëñ tubaa lu wane ni donte wax na ci jës bu ne ousmane ñëw na fii dafa wax ne xolu ousmane moo ñëw dafa wax ne is qalbu ousmane fihim kal xusaati maan amma salaasatu fal izhaaru man bahama xolub ousmane ma nga woon ci seen biir mel ni xarekat yi waaye ñett ñi moom ñoom danoo ñëwoon ak seen jëmm muy muy seydina alin seydina abubakar ak seydina omar Ah, muy bay ju daw yaram yoo xam ni maanaam liñ ci war a jànge bari na mu ne wa xiinama aynu l aada axbarahum bi maa lanaa xaala tabshiran wa man fasama xar shaawara saxbu saxba xayru xalqi takrimatan wa baadu ayru abi sufiyaani qad dahima muy net li xara bi bi yonent bi saasam di di di diisoog saxaaba yi ak njëggum abi sufiyaan mi nga xam ni daa rëcc jaar ci sàkkal géej gi ba rëcc sëñ Tuubaa ne law laa badran walakinnahum umyun hawa bakama bu du woonu texee dik eh, eh, yéefar kon du dem badar waaye bi leen yàlla yóbbu foofu dañoo gumba tëx lu mun ñu fa dem ndax yàlla daan na mu ci ñoom texee na mu ci ñoom dem safara waaye daani lawla sahaadatu ashaabu nabii maan la man taxaw badrahum wal kullu xat jazima sahaaba bu fekkul woon yàlla nar leen a nar leen a texeel ëllëg jox leen dara ji ci gën a kawe kon duñ dem badar te ba ñuy dem badar kenn ku nekk yaa ngi ànd ak dogu gu mat sëkk sëñ Tuubaa nee na saaru wa saaru ilaa badrin li ni'mati man faazu wa niqmati man xaabu fazaolima muy bëri bayit bu yéeme ndax saaru wa saaru ñaar yooyu ñoo bokk ñu firi waaye saaru ju jenn ji e, jullit yi ñoo ko moom saaru ji yi des yéefari ko moom loolu nag yi yéemeeg wayu sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa dox nañ dox nañ ñan ñoo dox mu ni dox nañ jëm badar ngir xéewal ki nga xam ni mooy sunu borom tabaaraka wa taala nga xam ni nar na leen koo jox ñooñu ñooy juli ñi ñeneen ci des dox nañu jëm ci ndigam ndigal mbugalum yàlla mi nga xamante ni daf leen nar a duma ëllëg yowmal xiyaam sëñ Tuba net li gis nga li ma la waxoon sànq ne la ibnul aswad moo njëkk a génn ñu dóor ko jaasi mu faatu nga xam ne mooy borom jikko ju ñaaw jooju moom la sëñ bi di net li fii ne wa baadama shawara shawaru jaa u bira ihimu wa saaduhum xaara xawlan xan na faa waxama su mabnul su mabnul mubdin an yasira bihim ilal ximaadin li sidqin fii man sarama waaw sëñ Tuubaa nee na keroog nag xeex bi tàng na jër jër jër jër waaye nag yàlla yebal ay malaayika yoo xam ne ñetti junni lanu ci bisu badar moo tax mu wax ne fa xaada zul arshi jundan laa yunaziuhum jaysun li bukmin xawaw an ay samama jundun bi xaylin wa armahin malaikatun fi yawmi badrin nafat suman xawaw bakama ndeysaan nee na sunu borom yebal na ay malaayika ay soldats yu war ay fas yore xeej muy ay malaayika ci bisu badar nga xam ne bi ñëwee dañu duma ñoo ñi nga xam ñoo tëx gumbalu daal ñu ne ko ñaata lañ mu ne alfun wa alfun wa alfun baadaru ji yefan fii zaalikal wax mi man shaanu maaduma junni teg ci junni teg ci junni bi ñëwee ñu jël yéefari def leen ay médd ci waxtu woowu kon loolu ci gàttal rek yi xasida googu moo moom la sëñ Tuubaa di nettali xanaa ñu béy nga xam ne rek mooy euh, abu jahlin mi nga xam ni daanaka xare bi yëpp moo ko sookee te moo ci gën a ñaaw aw deewin moom na Sëñ Tuubaa di wax ne di wax fii ne wa baana jahlan wa baana jahlan abu jahlin fa allamahu man ittadaa fa attana saaqa waxturima law kaana saalima maqulin la saalamahu qabla iltihaabi harbin ladan arwajima lakinahu jarrahu nisfu ismihi li radan fa haddu kulli musamman min suma usama Sëñ Tuubaa nee na abu jahlin moom déegi mu dee fis na te ñaaw ndax yeel ba la ñu dagg mu dali fële daal ni bu fekkoon te ni koo xam ni la yàlla nar na ko dimbali nee na euh, du ko tuddee tur woowu ndax turu ñaaw ñaaw turam nee na moo tax mu alku su badar de bu tuddoon neneen sax dana dana mucc mooy jahl baatu jahl bi ne ci tur wi nee moo tax muccul mais bu tuddoon neneen sax yàlla mën na ko musal boo demee ci xasida gi di Jazbul Xuluub bi ma ngi ko fee nettaliwaat ci nettali bu neex boo xam ni sallim ala badrin jala du jël xurubi wa ala dawil maqamat ula wa hisbi wa admi daal dina qad qaama xayru bashari wasta xiyaari zumari ila zawi takaburi kal badri wasta anjumi nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ngi taxaw ci digg tànneefi mbooloo ya tànneefi mbooloo ya mooy saxaaba yi mu mel ni uh, weer wu nekk ci biir ay bidiw bidiw yi mooy saxaaba yi weer yi mooy yonente bi salallahu taala a biis bistatal xitaal yow ma taxaarafu rijaal yow ma daawloo jëm yi sëñ tubaa nee na bis boobu jonjoo ba tar na lool bis boobu xare bi tar na bis boobu mooy njàqare ci ñenn ñi waaye mooy ngërëm ci ñenn ñi mooy ngërëm ci jullit ñi waaye bisu njàqare la ci yéefari daani fa zalik wa zalika al yowmu falaax li sitidaayin wa rabaax li sitiqaayin wa salaax li kulli shaxsin muslimi sëñ tubaa nee na bis boobu texe la di mbégte di yéwénal di texe àddina ak alaaxira ci képp koo xam ne gëm nga yàlla di ab bisub keroog daa ne laaxaa zawul xayri sihaab fii dawi xayri sihaab wahum maan usun xitaab zawu tifaayi imami ñi nga xam ne lu baax rek moo ne ci seeni xol ngërëmal yàlla rek moo ne moom moo fees seen xol daje nañoo ak yéefar yi nga xam ne lu bon rek moo ne ci seeni xol ak texee ak dem sawar ak bis muy bis bu tàng jër sëñ Tuubaa nee na waaye tanazaul mawta maa wal kullu minhum shajua yabxi liqaa aw yusra li xubbi maayil xumami nee na julliñ ci boppam dañ doon xëccoo dee ku ne naan sa borom maa njëkk a dee naan sa borom bàyyil maa njëkk a loolu ngëm yàlla gu gu tar moo leen ko yóbbee waaw kenn ku nekk yaa nga ànd ak njàmbaar gu tar yaa ngi ñaar ngay ñaar kay ngay lijjanti benn nga dellu nga gañ a xare bi delluwaat sa waa kër ànd ak sa ngërëm wala ñu rey ci toolu xare nga dem bàjjana daal ni su mën a xaamina sama xaylun wa jundun azuma ilaa raisil kurama bisan bi xeer wahmi fi ñu ko waxee rek jëtti junniy malaayika jóge ci asamaan euh, ànd ak Seydina Jibril mu jiite leen waaw ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir faagaagal yéefar yi daal di amadahu rabbul anaam bi jundin amlaakin idaam li adadin laa li lihaam addaw zawi taazumi nee na yàlla ci boppam moo tëbb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñetti junniy malaayika yoo xam ni eh, ñoo xam ni seen nañ mel na ko yàlla nëbbu ñu faagaagal yéefar yi duma leen duma yu méttee méttee méttee wa fihimu is waradu xaliluhul mumajjadu jibril ni'ma sanadu fawqa jawadin shazami nee na keroog jibril moo leen jiite war ci xay zoom nee na kaalawoo métteelu ni ma ko la métteelu woon sëñ tubaa nee na wasaarao ilal kifa maa suuf wa rima hubba salaahin wa falaa xalf xalfal imaamil adami malayka yi bi ñëwee ñëw nag fas yéene fayul jullit yi xeexal leen ànd ak yonente bi sallallahu alayhi nekk ci ginnaawam sëñ tubaa nee na xeex booba nag وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقه بالهاشمي العالمي صديقه المكبر ذو الهيبة الموقر عنيسه المصبر في الغار بعد Sadiq mi aji dëggal ji àndoon na moom ci xaaru Hira ba muy ba muy gàddaay ci Madina ma nga woon ci xare ba wa fii mul mubasharu bi kulli xayrin amaru Seydina almutamiru isatu kulli muslimi nee na xare boobu Seydina Omar ibnu Xataab mi nga xamante ni mooy ki yàlla bégal ci wépp yiw mooy Seydina Omar ma nga woon ca xale ba wa fii moom man nakaha binte raisi sulaha nurayni xiina aflaha bi bi xatti kulli ma asami sayidunal mu jammalu Ousmaanu man xatxatalu man xatxatalu wa huwa izan yuratilu kitaaba mooti laksami sëñ Tuubaa nee na xare boobu Seydina Ousmane Seydina Ousmane mi nga xam ne moo denc ñaari doomu yonent mu Zeynab ak Kalsoom ñu koy wooye ñaa nurayni ma nga woon ca xare ba wa fii mul jaalil wasan abul xuseyni wal xasan baabul ulumi wal xadat abu shirafi leen jumi Ousmane nag ma fàttali leen ni sëñ Tuubaa waxoon na sànq ne xolam moo demoon waaye demuloon sëñ Tuubaa nee na bokkoon na ci nekkoon ci xare ba ki nga xamante ni moo daaneel xërëm yi muy Seydina Alin mooy bàyyu Xasana Useynu di goro yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy na ko doomam muy Fatimatu waaw kooku mooy Seyd moo tax mu ne Seydunal mukarramu aliyuhul muazamu murdil inzal asam sumu mahil azawal wajami sëñ Tuubaa nee nag bis bii nag li ko ci yàlla defal ndax bisu badar bii bi daalika al yawmi xasal lanaa amaanun min wajal wa min anaayin wa xajal wa min jawan wan a demi nee na bis bii ci lañu am sécurité ci lañ am mucc ci mboolem njàqare yi ak tiitaange yi ci lañ mucc coona ak lépp lu waral njàqare njàqare ci lañ mucc tamit ci lépp lu waral réccu daane bihi xani naa lil jinaan an xaswatin wa an hawaan bihi lanaa taaba zaman maa qabul xidami sëñ Tuubaa nee bis bii ci la suñu jamono neex ci lañu yàlla tàqale xeex ak doyadi ba yób ba dem ba keroog ñu dem kon loolu moo tax sëñ Tuubaa wax ne euh, xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu doon xare ci la ko yàlla fegale moom ngànnaay xam ni sëñ Tuubaa wax na ni shahida lillahu bi anni waahidu min ahli badrin maa nahani jaahidu sëñ Tuubaa nee na yàlla ci boppam seede na ni man kenn laa woon ci waa Badar te nee képp koo xam ne abu ab weddikat yàlla nga dooma jublu fenn dellu ni shahidani laaw bi an nii waahidu min ahli badrin xaafa min jaahidu yàlla seede ne man kenn laawaan ci waa badar moo tax yéefar yëpp dañ maa ragal moom sëñ mu dellu wax amma ni minal ida bi xadri fahu mu baarizun li ahli badri sëñ tubaa nee na bi may dem ci géej gi maa ak ahlu badri ñoo ànd ñoo ànd bi may dem ak bi may del del si ribtu zahaban wa iyaaban bihimu bi may dem maag wa ahlu badri ñoo ànd bi may ñibbisi ñoo ànd daal di képp koo xamante ni jóg nga fas yéene maa trahir ci noon yi mbaa nga fas yéene maa lor mbaa nga jëme ci man naka sudu noonu na nga xam du yàgg man yàgg ahlu badr daal di akramani laahu bi kaw nii maay wala seli fi xayri min mat mat may ndeysaan borom tubaa nee na man yàlla taral na ma ñu ma tarale mu ne yàlla taral na ma boole maag ahlu badrin ñu ànd man euh, escorté man ni escorté woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam te man bëgguma woon leen loo rek laa bëggoon dellu ni damma kitaabatiya li badri jaailu umri ka layaalil xadri sëñ tubaa nee na yàlla sax yamu ca sama mbind mi yàlla tàppe na ko mu mel ni bisu badar ba ci daraja yàlla mi xam moo def sama dund yëpp mu mel ni guddi laylatul xadar ci barab yu baree bari wax na ko addani allahu min ahli badri bi mawlidil muxtaari alil xadri borom tubaa nee na sunu borom ci boobam sax limaale na ma ci waa badar ci darey gud darajey guddi gàmmu kon ahlu badri ñu ngi noonu nga xam ni sëñ tubaa bi muy dem ci géej gi bi mu ñëwee cëpp jeewal foofee la fekk waa ahlu badrin ñetti téeméer foog ñetti ñu de rang di ko xaar bi ñëwee ñu ànd ak moom escorté ko kenn ku nekk naan ko man maay diw doomi diw ak diw man maay diw doomi diw ak diw boo demee sax ci diiwaanu fulku masuun bi nga xam ni moom la ñuy jàng jamono yi boo demee ci biir da nga fekk xasida goo xam ne mu ngi ko tuddee xasidatu asmaul badrin alkiram nga xam ne ñetti téeméer fukk ak ñett yooyu kenn ku nekk indi na sa ci biir ak li nga xamante ni mooy sa daraja ak la yàlla terale ëllëgee bu ëllëgee ci aljana lépp sëñ Tuubaa indi na ko ci ci biir ci ci biir boo ci xasida googu kon euh, euh, ñetti téeméer fukk ak ñett yooyu nag foofu la ànd ñoom ñu départ mu diirub ne ci géej gi saa boo xamante ni yéefar yi nar na ñoo indi ci kaw sëñ Tuubaa lu jaaduwul alu badin ñooy réagir waaw ni ci géej gi ni mu ko net léeg boppam ci ay yesa mi ni laaw wayn da jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali bi ko Sëñ taalifee xam nga ni ay yesa daanaka moo trace yoonu géej gi fi mu ci jaar jeewal gis nga mu ne ay yesa mi ni laaw wayn da jeewal ndar nafaa li xayri laaw xablu fi nafaa li xayri ndakaaru bu dee ci géej ci gaal gi alamani rahmaanu fi safina konakiri bara anillahu la daa konakiri garam basaam Côte d'Ivoire ba ñu ñëwee bene daani rahimu inda dawmi azaba andillahu fii Garambassa ah ba ñu ñëwee Libreville ah, Libreville googu nag fala ahlu badrin feeñoon ba yéefari gis leen muy tubaab yi ba xëm fa xam yu metti ba mu des seen capitaine ba nga xam ni sëñ tubaa keroog dañoo ñëw ci moom ne ko lii xew suñu diggante capitaine bi ni ko bu ko nettali ne ko yow ndeke de am nga ñoo xam ni boo bëggoon a xeex sax ñu jàppale la sëñ Tuubaa ñu mel nan waaw di ko kekkantoo te fekk booba ahlu badrin la moo tax bi muy taal taalif xasida gi baag si ci foofu inna ibadi laysa laka alim sultaanun dafa dagg laamu laysa gi ak yaawu laysa gi ndax ci ndigalu bàyyi bàyyi ko suñu borom ndax gannaaw tubaab bi nee nañ ko bu ko netli duñ ko netli yow it bu ko netli sëñ tubaab daal di tëb laam gi ak yaa gi ba ni mu ñëwee njaareem ginnaaw ba la taal bi mu wax si di saar demoon ci géej gi ba mu demee na gis kenn ci tubaab yooyee mu nettali ko ni ko seen sëriñ bi di na fii waaye am na ñu mu àndaloon ñoo xam ne biñ leen gisee ñu bari ñun dañoo xam ñi ñan ñi tàggoog seen sago bi si saar del see ba nettali ko sëñ Tuubaa nag sëriñ bi nag ci la woote nag laaj ne képp ku amoon xasida ay samini laaw jox naa la digal nga indil ma ko bi mu koy indee seen sëriñ bi nag ne leen nag xasida gi daa amoon ñaari béy di ci des yoo xam ne suñu borom dafa maa joxoon digal ni ma jotagul léegi nag jot na daal di koy leeral mooy ci xasida gi bi mu egsee ci Libreville ba mu ci egsee daa waxoon ba agsi ci ne suñu borom tabaaraka taala defal na ma loo xam ni ci géej gi ku dul man amoo ko mooy te mooy bi mu bi mu ne inna ibadi ba ci eh, deel gi daani rahimu inda daaw mi daf caa teg yasara lillahu la laa libar wani maa xaaba kul wali yàlla jàpp ndal na ma bi ma nekkee Libreville loo xam ni waliyu bépp benn waliyu mosu koo am maa xaaba an ku wali loo xam ne képp kuy waliyu rek umpu na la bi ma nekkee ci Libreville yàlla jàppandal na ma ko lool nag sëñ Tuubaa lu ko woon da koo tëboon mooy inna ibaadi laysa laamu laysa gi daan ya rahimu inda daw mi law bi maa na ani tasaaw mi yassara lil mu naa laa ribal wari man xaada li maa xaaba an ku li wali na ci loo xam ni benn wali yu mus koo am loolu nag leeru ko woon bi mu njaareem nag ci leeral daal loolu mooy lan mooy lii xaada ahla badrinil usuda man zaxzaxa alwaasiya wal xasuuda bi ma nekkee ci géej gi yàlla teewal na waa ahlu badrin ñu gis leen tubaab bi gis leen ba la xew-xew suñu borom mi nga xamante ni mooma tàggatal tubaab bi ci diirub li ma nekk ci géej gi foo ma loo xamante ni benn wali yu mos koo am ah daal ci teg yaaga mooy yaquudu li xaysu akunu laaw tafsira laa ilaha illallah tafsira laa ilaha illallah sëñ Tuubaa moo ko moo ko leeral nee na bi ma nekk ci géej gi suñu borom tabaaraka taala moo ma jox mbégum laa ilaha illallah mooy képp koo xam ne jeme nga ci man du noonu laa ilaha illallah ak bokkam ak ahlu badrin daal ñu jóg dal sa kaw kon ahlu badrin ñu ngi noonu yàlla defal ci sëñ Tuubaa lu kenn musta am te mooy boole gim ko boole ci ñoom muy seen njiit ni ko yonent bi sallallahu alayhi nekk woon mu nekk loo xam ne sëñ Tuubaa daana ko netti lu bari daan di wax ne sarax de ko jox ku sa ku ko yeeyoo mooy ahlu badrin yi euh, bëgg nañoo ànd ak man euh, itteewoo nañ ko waaye may itteewoo naa ànd ak ñoom kon mbokk yi waa Badara ngoog xaala Badara ngoog Cheikh Ahmadou Bamba ngi noonu nga xam ne kenn la ci ci ci waa Badara mooy loo xam ne moom la ko suñu borom jagleel ci mineef yi nga xam ne suñu borom sàkk na leen ba mu sàkkee jamono ba léegi nag te ñooñu yàlla daf leen a gërëm démb tey soog a ñëw ndax laqad radiyallahu anil muminina is yu bàyyi woonaka taxta shajarati kon nag mbokk yi badara ngi noonu yàlla na suñu borom defal koor gu ñu nangu te defal ñu saadatu daaray ni maa kifaayate hemmahi ma ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sa amani hamma saqati zaman